ñaanal yàlla sunu borom gën la fi yàggal bu baax a baax te defal la ak wér ndax nun euh, li nu gis ci yow euh, du dara lu dul lépp bëgg sëñ tubaa rek ak lu aju ci sëriñ tubaa ñii nag yàlla dafa def ñun yàgg nañoo ànd ak ñoom di jébale liggéeyu sëriñ tubaa bii li nga xam ne nag moom lañ ci wax rek ndax liggéeyal sëriñ tubaa dafa am solo lool sëñ tubaa daf daa wax ne sunu borom day du mbindeef bay am jikko waaye nag am na ay melo melo sunu borom nag bokk na ci melo sunu borom neex a liggéeyal ak naqare liggéeyal ndax nee na koo xam ne kii boo jógee ba di ko liggéeyal ba jëm ci di ko liggéeyal day mel na nekkoo ci dara ndax koo xam ne du la wax ne la fii laa lay feye du la wax ne la lii laa lay feye du la wax ne la waxtu sàngam laa lay fay loolee tegtale ne ak naqare liggéeyal waaye neex liggéeyal gi it koo xam ne bu bu bu bu demee ba di la fay du seet yaa ngay jëf du seet jëfoo du seet yaa nga fa du seet nekkoo fa day fay rek loola tegtale na ak neexa neexa liggéeyal Serigne Touba bi nga xamee ne loolu am na mag ña fa nekkoon daf leen a waxoon ne leen yéen ñii de seen waajur yi sunu borom lañ doon liggéeyal mu di leen fay bañ fi nekkee bañ fi nekkatul mu di leen fay yéen ñii bu ngeen fi nekkatul mu di mu di leen fay Euh, sëñ sëñ Tuubaa ci boppam mas wax nañ ne mas naa am benn laax boo xam ne da ko togg ci loxol boppam mhm. laaxu lay duur euh, du mooy mos ca tuuti jox ko ña fa nekkoon ne doon Jibril de dafa wax na euh, sunu borom nee na ku la liggéeyal jariñu moo tax moo bëgg a liggéeyal sama bopp bopp kon nag ñoo ngi leen di gën a soññ rek ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa kat ak yokku rek la mhm. waaw kon nag ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax nekk benn xam ne ah liggéeyal sëñ Tuubaa rek am solo waaw kii nga xam ne nag mooy sunu lépp moom di Cheikh Mouhamadou Mountakha ñun xam nañu moom li mu fas ci sëñ Tuubaa xam nañu li mu fas ci ñi fi sëñ Tuubaa bàyyi kon nag ñoo ngi koy ñaanal taxawaay bi yàgg lool ànd ak wér. naa liñ ci jubluwaat rek ci wàllu liggéeyu tàpp yooyu yàlla daa dogal ñu liggéeyloo ko Turquie ci wëlooru wu toll ci deux cent soixante-quatorze mille euros. bu buñ ko xoolee war naa tollu ci téeméeri million ak juróom-ñett fukk bu booleeg liñ ko indi ak liñ ci fare war naa tollu ci 200 million yu teg tuuti ñaar téeméeri millions yu teg ak weccet ñu ciy sant nañ ku demee sëñ Abdoulaye lay ndax yàlla dogal na conteneur bu mujj bi moom moo ko jaayante indi ko jëlee ko dakaar ba Touba ja def ko ëddee sëñ Touba ñu ànd ko daayira Muqaddamatul Xidma nañ ci turu sëñ Afia ak mbooleem ñi nga xam ñoo bokk liggéey bi kon ñoo ngi bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nee mi ngi delloo nuyoo bokki taalibe yëpp di leen delloo seenub siyaare di leen xamal itam mbégte mu rëy rëy rëy liggéey bii tey liggéey bii tey yor bi ci ñi yor liggéey ba ca jumaa je muy waa Muxaddamatul Xidma biñ ko waxee nee na xelam demul ci ñenn ñu dul yéen bokki taalibe Espagne yii nee na biñ ko wax Muxaddamatul Xidma waxee ne ko tàpp yi daa dafa ajowoo yeesal si suba sa la wax Cheikh Mamadou Basir ne ko na ko wax waat bokki taalibe Espagne ne leen ñoom laa ko féetale nañ liggéey liggéey boobu te booba kilifa yi demaguñ nee na kon dafa mel ne lii dara bettu ko ci nee ndax yàqin ju mu am ci yéen seen yéene ju rafet seen pasteef bu wër seen yitte ju rëy loolu daa fekk mu xam ko ci yéen ba noppi moo moo tax bi ñu ko waxee liggéey bii xelam demul ci ñenn ñu dul yéen nee na loolu kon alhamdulilahi rabbil alamina nee na amati na ci mbégte mu rëy a rëy ndax mel na ne dara bettu ko ci waaye kon jërë ngeen jëf nee na nu gën sant suñu borom bu baax a baax a baax moom mi nu booleek sëriñ bi sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg te gën a rafet njort te gën a rafet njort gën a soññ nag suñu bopp gën a soññ nag sunu bopp sunu kem kàttan sunu kem kàttan nu gën a fonk sunu lislaam sunu kem kàttan nu gën a fonk sunu lislaam gën a fonk sunu taalibe nee na lislaam moom ñëpp xam nañ ko digal la ak tere kon na ngeen ci gën a góor lu baax ak taalibe nag moom sëriñ bi moo na ko xamal ndax sëriñ bi moo ko fi indi te moo di jublu yàlla di yéene lu baax te yàlla rekk tax di jëf lu baax te yàlla rekk tax bëgg lu baax te yàlla rekk tax bañ lu bon te yàlla rekk tax di daw lu bon te yàlla rekk tax nee loolu rekk mooy liggéey bi kon paste bu rëy bi ngeen am ci ndigal lii ñu leen joxoon ngeen defe ko nii ngeen ko defe nee na tax na liggéey boobu yi li muy rëy rëy xelam dal na ci yéen nee na njort tamit gën naa rafet ci lépp ndax sëriñ bi kon na seen xel dal bu baax a baax a baax tawfeex ji nu am ba sunu borom bindu nu boole nag sëriñ Tuubaa booba la sunu lépp defaru nit nag daa mënta toog loxo yeneen kon nanu góorgóorlu liggéey rek sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéey sëriñ Tuubaa nee na loolu rek mooy doxin wi kon jërë ngeen jëf nee na xelam dal na ci yéen bu baax a baax nee na da leen da leen di seereel rek ne mi ngi gën a yeesal ak jaayanteem ak diggam ak sëriñ bi te di leen ko seereel te nee na mi ngi leen di xamal ne mu ngi fas yéene gën a feddali ak laxasaayam fas ko yéene ànd ak yéen waaye daal ngeen xelam bu baax nee na xelam dal na bu baax kon mi ngi leen di sant cant gu rëy rëy di ko seeral sunu borom mi nu boole sëriñ di di ko seeral sëriñ bi muy borom liggéey bi cant koo xam ne buñ ko mënoon fa mu war a yem rek fa mu koy tàmbaliwaat jëm ko te du am yem waay waaye xolam nee na xolam sedd na guy ci yéen bokki taalibe yii nga xam ne yéen a nekk Espagne ndax yitte jëm xam ci yéen nee loolu sax mantal gi mi feeñ na ndax Cheikh Mamadou Basir mu Cheikh Abdou Khadir mi ngi nii di leen seeral liggéey bi Cheikh Mamadou Fadil mi moom Cheikh Amadou Mourtala mi nga xam ne yéen ko daan ànd naka jekk mi ngi nii toog ne loolu mandarga la mu rafet mu mat sëkk mu dara desut ndax kat mbooloo yi li ñuy bari bari ngeen ànd ko ñaari seen sëriñ Tuubaa man ñu doy fii bokk ci tay bi mbooloo yi li ñuy bari bari ñaam tawfeex yi ak ñaari sëti sëriñ Tuubaa ngeen ñëw fekkaat ko fi moom mii mu toog muy sëriñ Tuubaa ñu ànd ak yéen ab liggéey jébbalu liggéey bi la lool tawfeex ju rëy rëy rëy la nee na kon jërë ngeen jëf na ñëpp taalal ñaanal leen nee na mi ngi ñaan bu baax sa ñaar yi ñu ngi ñaan mu ne ni mu xamee nee na ni mu xamee seen taxawaay ci liggéey bi te te liggéey bi mi ngi fi dan ci nekk rek na ni mu koy waxee rek mu bañ a taxaw ba bis penc ba nee loolu moo war doon suñu yitte moo war doon suñu taxawaay nee kon ci biir liggéey bi ginnaaw lii ñu leen digaloon def ngeen ko nam gën a rafete dana leen daal di jox yeneen ndigal laneen ndigal nee na loolu nag Cheikh Maodo Bachir ma Cheikh Abdou Khadir dana leen ko gën a leeral nee nam ko yónnee woon ci yéen tapis yi ne la ko yónnee waat ci yéen beneen liggéey ab liggéey la bu ne ci biir liggéey bi boo xam ne bu ñor xomm la bu yitteel la te bokk ci gëri sëñ Tuubaa te foofu la jëm ne loolu nag si amul basi dina leen ko jotal xamal leen ma lan mooy liggéey ba ak ni ko bëggee nee na si naa leen ko leeral incha allah te nee na xelam dal na ci bu baax a baax nee na liggéey bi mu leen di bëgg a jox xamewu ko liggéey bii ngeen ko jébbal bu sotti ba noppi ndax lekk la demee alhamdulilah gàttanu bi am na ci ba noppi bi mu gëmee ne bi mu koy xameewutu bi noppi bi loolu mooy béy dana noppi loolu kay tawfeex la kon mbokk yëpp ngeen bàyyi ko xel xam ne ndigal ñëwaat na bàyyi ko ci Seex Mamadul Muntaxaa jaar ci jëwrinam Cheikh Amadou Bassirou dana dikk ci ñun fu waay jëm nañ ko yóbbaale